والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمون تمسكوا بدينكم واعبدوا ربكم واقتدوا بنبيكم واحفظوا جوارحكم عن أذية الناس وادفعوا بالتي هي أحسن هذا الذي أمرنا نثبت على ذلك ونشكركم كثيرا mbokk jullit yi ñu ngi sant yépp di sant borom bi tabaraka wa dégg ngeen yéen bi ñu wax diis na woyof na ndaxte ay kàddu la kon ñooñu ñu tudd ñépp ñu ngi leen di wuutu ci benn jëmm ji ndaxte ñun ñépp benn jëmm la kon ñooñu ñépp ñu ngi leen di jéggulu ndaxte ñu ngi leen di wuutu ca loola moo tax dañuy gàttal bëgg a tànn kàddu yu matale kàddu yooyu mooy jullit yi nañu jafandu ci suñu diine nañu jaamu suñu borom nañu roy suñu yonent nañu téye suñuy cër bañ a lor kenn nañuy fayoo li gën a rafet ndaxte roy yonentu boobu moom la borom bi subhaanahu wa taala joxoñ te kooku xottil nañu yoon wi ndaxte wax nañu ne qul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahda qul inni lan yujirani min allahi ahad qul inni la amliku lakum darran wala rachada qul inni lan yujirani min allahi ahad walan ajida min dunihi multahada illa balaagan min allahi wa risalati hada balaagum min allah kon mbokk jullit yi ñu dal di bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi xottil nañu yoon wi mu ne man dey sama wax samay jëf samay taxawaay samay action mooy woote ñu jëm jaamu ji borom bi subhanahu wa taala man dey dinaa leen wax ne garantiwuma leen ci dara du fanqal leen lor du ñoddi leen njariñ waaye yoon wi daa leen di woon nu ngeen di def ba mucc ci lor waaye nu ngeen di def bi am njariñ waaye maa ngi leen di wax nag amul jëmm ju mun a dox sama diggante ak borom bi subhanahu wa taala amul lenn du jëmm du alal du xoqatal du lenn damay jaamu borom bi subhaanahu wa taala di jottali kàddug borom bi subhaanahu wa kon jottali kàddug borom bi subhaanahu wa taala la waaye ñu bàyyi xel dëgg nag idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsan ndaxte loolu mooy lii tax ñu xejoo mooy lii tax ñu ànd fokk rek ñu nangu xejoo nañu nangu xejoo ñoo xam ne mbir mi ñoo ko bokk ñoo bokk réew mi ñoo bokk lépp wuute ay xelaat diina ji moom diine bi yàlla la diine ji moom yàllaa ko moom kon ñun ñépp dañuy woote jëm ca diine jooju def ko nag ni mu gën a rafetee laabal xol yi laabal jëf yi deferaat kàddu yi deferaat yéene yi yéene ñépp jàmm ndaxte ci loolu la jàmm amee yal na ñu yàlla jàmmal yal na ñu yàlla musal yal na ñu yàlla defal tawfiq sàmm ñu aar ñu may ñu wér ak wérle wa ma dalika ala allahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullah takbir